masawa isja donc Chérif Chérif ñaan gi ma ñaanal yàlla na ko yàlla nangu sama liggéey bi yàlla naa ci yàlla naa ci dellu si waat ba ñi nga ñi ma tane ma continuer di leen dimbale waaw ndax man sama dañuy nit ñi dañuy tarbiyu sëriñ mm-hmm. man tarbiyu ma benn sëriñ yàlla laay tarbiyu mm-hmm. xamul tax may tarbiyu yàlla dama bëgg bu ëllëgee bu ñu ma tegee ci sama yi bàmmeel mm-hmm. bu ñu ma dugalee man ne ci jàmm mm-hmm. parce que amul ko dul dee mm-hmm. am naa 72 ans te 72 ans ku ko am xam nga ne xam nga gën a jege di yéegi étage li ma metti mooy te tax ma tiit dama yor njaboot gu sew ñu ngi ci kër gi bu ñu añulee day metti bu ñu reerulee day metti bu ñu ndékkiwulee day metti te maa nga fa ñitti seet yoo xam ni seen yaay dañ ma koy dañ leen fay abandonné dem jàngi école ay xale yu ndaw amaguñu deux yu mat mm-hmm. ah yaay jënd dugub bi ñu leen jënd suukar jënd meew toppatoo leen fayal leen crèche loolu boo toogee ba mu dakk Chérif métti na waaw je suis dans un calvaire extraordinaire du ma ko rusa wax ndax yàlla la laa tàllal nga nangu ko garanti ko asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaw wa rahmatullahi taala wa barakatu dañuy dee ñu ne doy na waaw man nag salwaa daal bër bu set tuux nañu mooy euh, mënatuñ koo muñ yàlla ne leen lu ngeen bëgg ñu ne xottil ñu misra ay déeg ñuy bay soble xoolal yi ñàkk fayda yi ñu tudd ñuy bay soj soble batañ sa laaj comme yi yi yi euh, euh, kii di ni kale ni ñu koy waxeeti xaafis di jaay yooyu de lañ lañ taamu yàlla na leen ah atastabdiluuna billadi adna billadi huwa xayr ihbitu misra wa duribat alayhimu zilla wal maskana <laughs> yàlla mën a wax yàlla na jëndee ngeen toroxtaan nga tedd nga moo indi mbéy waaye mbéy amuloon nit moo xamul lu miin lu miin rek daanaka rek foyee ko kon nag ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaanal yàlla ni nga ñu ko ñaanale te incha allahu li ñu la wax ci kàttanu yàlla incha allah ci barke suñuy kilifa yàlla dina ko def incha allah yow kañ boo demee incha allahu taala loo daan def di nga def lu kopp ci kàttanu yàlla koo daan dimbale yi di nga ko dimbale ba dimbale ku dul moom bu soobee yàlla insha nu tubaab bi tuddati sax Eric boo demee waxal Eric li nga bëgg dana ko def insha allah waxal Eric li nga bëgg lépp dina ko def ni nga ko bëggee insha allahu ca bul bàyyi dara nag li nga bëgg yépp wax ko ko te dina ko def insha allahu ni nga ko bëgge ca bul bàyyi dara ña ngay dimbale naa ci mujj fa nga daan njëkkee njëkkeel foofa muy ca sëñ Abdou Aziz Al Amin njëkkeel ca moom newu fi waaye njobootam a nga fa ba ci maam faamam maam faamam sama wëllëre la taalibe Joob Njaga <laughs> sama wëllëre la de maam Faama sama wëllëre la de ca Joob Njaga jaa ñu boole woon maag moom waaw taalibe Joob moom dong la Joob Njaga am ci taalibe ak soxna soxna May bu sëñ Abdoulahat Mbakke waaw Joob Njaga mu ne ñoom ñaari taalibe yooyu rek laa am mu ne ndax ñoom seen taalibe dëggu na sama gàmmu gi bu ñëwee dañuy indi ceeb indi déwlin toog ba mu jeex waaye ñi ci des ñépp waxi kese duñu ay taalibe <laughs> Jóob Njegen nit yàlla bu bu bu doy waar la woon ci may nettali mu ne ah maam Faama dafa bëgg toujours may gisanteeg papaam te papaam neexul a gis mu ngi ci kaw maa ngi ci suuf fasul yéene wàcc fasuma yéene yéeg <laughs> kon wax naa ko na yolomal ma yolomal ñu gisee waaye bu teengalee ma teengal bi ñu gisee <laughs> ndeysaan nitu yàlla pire bu ñëwaan ci kër gi sama diggi lal ba lay jubali ferenku laay dindi teg laay gi teg commandé lu ko neex waaw fii ci kër gi la daan yendu ndeysaan lu ko neex lay commandé waaw ba bu ma fi fekkee bu ma fi fekkul nag moo ci yem waaw bi ci mujj sax ñetti yoon yi mu fi ñëw yi ci mujj yëpp fekkuma fi ndeysaan Fama Wade la fekk yal ko yàlla yërëm moo ko teral ba mu dem bi ma ñëwee mu ne ma Jóob Njaga ñëwoon na fi waaw tubaarkal la ah yooyu yëpp nag bu ñu koy nettali pour ñu xam ne ñun ñëpp benn lañ waaw ñun ñëpp benn lañ tey mu ngi noonu dem na nettali rek lañ ci am si ñab du dem na nettali rek lañ ci am te nettali ku ne na ñaan yàlla mu rafet waaw ku ne war na sàkku it mu rafet ndax àddina yàgg na waaye ñun ñu fiy jaar ñoo yàggut waaw ku am téeméeri at rek fi mu ne nii daanaka dund gi dootoo ci soxla dara lu dem am na genn góor gu baax gu ma seeti woon am na téeméeri at ndeysaan may waxtaan ak moom mu ne ma ah man daal fi mu ne dem rek laa bëgg fii lu ma fiy def ma ne ko di nga toog ba ci kanam ni ne yow bëggoo ma ma ne ko waa bu yeboo ndeysaan ma di ko toj ma ne ko dañ dañ bëgg nga wétti luñu kooru tiijaan bu baax na eh, am na téeméeri at ren tabaarakallaahu am na beneen mag ba taxamit sama wëllëre la ren la am téeméeri at ak juróomi juróomi at waaw mag ñi ma xam moo ci mag waaw maa ngi ko bëgg a seeti sax ak xalifa naayoo bi bële sëñ Mor Gaye naayoo bi tabaarakallaahu moom it am na téeméeri at yu teg ak benn mag ñooñu nga xam ne magu Seydi Hadj Malick lañ te moom moomu baayam maamam la Seydi Hadj Malick àndaloon moo tax Maodo yàgg na de baayam bi ko jur ki ko jur la Maodo àndaloon sëñ Biragay waaw sëñ Baragay bu naayoo be la Maodo àndaloon sëñ Baragay moo jur baayam moom Mor Gay mii kon Maodo yàgg na de. te boo demee tund woo taalu Maodo rek fa ne tabaarakallah ah, yal nañu ko yàlla fayal Cheikh El Hadj Malick waaye daal ci gàttal li ñuy jeexale wax ji mooy gannaaw buñ ko santee sant sëñ Babacar ak sëñ Abdou Aziz Dabakh si bi yegg si léegi ak doomu meeram boobu ba leen di dugg si ndeysaan niru nga sa yaay de tabaarakallah yaayam rek lay nirool meer boobu rek lay nirool <laughs> waaw moom mi dugg si nii yaayam daf ma bëggoon a bëgg bëgg fu ma gis dafa naan junni bi junni bi daanu na cinq mille fu ma gis rek dafa naan junni bi daanu na jël cinq mille jox ma ba bés ma fekk ko ci gàmmu Baye Yoro Diallo bi may génn ndeysaan ndeysaan te xoolal xam nga ni mënu ko waaw ba gàmmu Baye Yoro Diallo laa ko mujj gisee bu daaw may génn mu ne ma ay dara ma ne ko waaw ah, mu ne ma su ma dee nag ma jullee de ma ne ko meer mboo loolu kenn du ko wax te ci gàmmoo gi kat bi bi may génn mu ne ma su ma dee nag ma jullee de ma ne ko ëpp naa def meer mboo loolu mu ne ma ah dee day am di waaye xaw ma kañ la waaye boo amee rek nag nag ma jullee ma ne ko ah waaye yal na yéex rek ak man ni ma mënee taxawaale xoolal lii bu ma leen waxaloon damay dem Bruxelles suba di ngeen ko xam du ngeen ko xam waaw hmm? ah, nit dana ma gis léegi ne maa gis shérif waat fekk shérif dem na bu yàgg dañ ciy sonal Mansour Guèye Pape moodu mi ak Atoumane yooyu nag jarul sonal nit léeg-léeg Mansour ne dañ naan man dama lay nëbb Mansour mën na maa nëbb <laughs> Mansour man ñàkkuma fayda bi Mansour di ma nëbb nag kenn samay soxnaa bu mënta nëbb nag waxuma nag Mansour man samay soxna sax mënuñ maa nëbb man maa te opté génn ñett yi maa ko tànn am kilifa ba ba may dee duma ko ñàkk maa tànn ne fang ci biir nit ñi maa tànn it nekk jaami doom aadama yi yàlla bind unanimité nag laa wax ba ci animiste bi maa tànn nekk jaamam hmm. waxuma jullit de waxuma catholique waxuma protestant animiste bi ne yàlla amul man Chérif ibraahima tànn naa nekk jaamam waxuma la keneen kooku laa wax de tànn naa man nekk jaamam nekk ci service ndax binduma ko yàllaa ko bind te ku yàlla bind ñorgo nga ko rawati nit ku xam valeur nit wala xadd karam naa bani aadama <laughs> billaay doo joxoñ nit naan kii sax animiste la Serigne Cheikh Tidiane si mi xam yàlla piir nee na animiste bi dafa juum rek mu ne dafay làmb ko muy jaamoo mënu koo daj mu jël bant bi rek waaye xam na ne bant bi mënul dara <laughs> non Serigne Cheikh a xam yàlla ah dafa xam yàlla piir mu ne animiste bi sax jarul balaa mi xamuloo ñu ne ko la mu ne parce dafa juum. moom dafay napp yàlla xamul fu mu koy napp mu jël bant bi teg ne mooy yàlla mu ne ay bant bi xam na ne moom du yàlla mu ne doy na sëkk nag bant bi ci boppam xam na ne moom du yàlla kii nag dof na bi def ko yàlla mu ne yàlla bàyyi seytaan ni mu jaarale fa kattanam mu di ko fajal aajoom mu ne loolu it mbaaxu yàlla la ah, mu ne loolu it mbaaxu yàlla la te mbaaxu yàlla la wax naa leen ko fii bés pour ñu jeexale ko jox sëñ Babacar sëñ Abdou buñ paree mu ñaan ñaari Seydi Hadji Malick a fi tax kii sëñ Babacar kii sëñ Abdou gis nga li yàlla di dogal te kër sëñ sëñ Babacar ak sëñ Abdou kenn mënu leen tàqale seen seen boole naan wala boole tuur rek sëñ Babacar si ak sëñ Abdou kenn mënu leen tàqale wax naa leen ko fii xoolal Namruus lim daj ci lakk maam Ibrahima bëgg koo lakk boobu li wax ne wàkkil lu ci yàlla ñetti weer ak fukki fan ñuy taxan taal di teg ñetti weer ak fukki fan ñuy taxan di teg te buur bu santaane ni taxan leen cerno baal ma de nakaati yow mi yow moom waaw yow nakalaati gasama waaw kañ kañ gasama xoolal mamaas mhm. Mansour Thiam nañ bàyyi yàlla xel ci jaamam yi man bu ma gisee kuy sous nit damay tiit bu ma gisee kuy dal ci kaw nit damay tiit bu ma gisee kuy xas nit ci bakkanam damay tiit ku dëng nag nañ ko jàjji yàllaa ko santaane waaye bu ci ëppal nag bu ci ëppal ndax bindoo ko lu tax yàlla na yonent bi lasta alayhim bi musaytirin waxuma ko de imaam Diop ku ko wax du yàlla lasta alayhim bi mu musaytirin moo tax nga dégg Alaaji Abdul Aziz xam yàlla ne awma sulta awma saytara dégg ngeen ko ba tey <laughs> ok sulta mooy peuple boo not nekk buur ci seen kaw boo santaanee ñu def boo teree ñu bàyyi saytara nag mooy dominer ni ay nit ñu ragal la ba boo leen santee ñu def ko mu ne ñaar yooyu yëpp awma ci benn man ab kon nit ni ko yàlla fonke ku ko xam di ko teral xoolal maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. lu ne Namruus daj na ko ñetti weer ak fukki fan ñu ngi taxan buur bu santaane ne taxal leen xam nga matt ma du doy waaw mu bu seddee ci gars mën nga ko fay ah ñu fay ko wala ah waaw fayal pap ba kanam dégg kon. lasta alayhim bi musaytirin xoolal li yàlla defal namruus bañ yàlla ba mënta supporter yàlla te yàlla ko bind di woote ne yàlla la it boole ci yàlla jeey ko dafa xëy bés ne damay rey seen yàlla ji ngeen di wax ñépp noppalu keneen koo xam ne wokkaam lañ ko jëlee la même chose comme moom waaw kañ jot naa ko démb nu mu tuddati aadama Maxtaar Njaay kon nga xam ne xam naa ko aadama maxtar Njaay la tudd nii lañ ko def indi ko jëlee ko wakam moom it ci yii rek la may gis ma ne ko bu mu amati toogal wakam man ma di la seet si waaye kii tamit bu mu amati na toog man ma di ko seet si incha allah te dinaa ko warlul bu ma duggee géej géejawaay weer wu jot dinaa ko seeti wala semaine bu jot incha allah dinaa ko seeti ngir serale ko xolam ak yaayam li ma doon wax ci yaayam pareegu ma ndeysaan bi ma waxee loolu xolal dama ñëw masalan tey ci ëllëg si yaay ji gaañu meer Mbow ñëw làmb ba daj ma wax ma ko ma ne ah bàttale woon na ma boppam de te biig laa ñibbisi waaye nag néewu jàmbur kenn du ko xëccoo lu seen borom wax ñu ne yow la ñuy déglu dañ ko rob ba noppi ndox maa ñu jëlee ci bâche ba ñun ñëpp ku ne falaxu uti foo jaar maa la ko wax ñun keroog kañ nàkk ya sax xaw ma nu ko gaa yi mottale yàlla xam na ko man moom dañ ma pamti pamtee rek dugal ma ci oto bi ma ne faf ndox ko rek jaaree noonu nga xam ne yéene yàlla rekk a xam nu yéene toll ci nit innama al amalu bi niyaati wa innama li kulli imri iman na wax kon fa tabaarakallaahu maam ibrahima alayhi salaatu wasalaam pour ñu jeexal namrus ne ko ibrahima boo bëggee ñu juboo bàyyil yàlla jiitu topp ci sama kaw yàlla dee na jeex na maam ibrahima gannaaw yàllaa ko yónni xalaatu ko sax mu njëkk ne ko namrus dem ba mu yàgg ne ko waaw léegi nag bu fekkee ne yàlla ji ngay wax dëgg la yow ibrahima yow laay wax mu ne ko mu ne ko wax ma nu yàlla mel mu ne ko huwa allazi yuhyi wa yumiit yàlla mooy dundal mooy rey mu ne ko di lii laa lay wax sa gàtt xel bi man maay dundal man maay rey nga ne yàllaay dundal yàllaay rey mu ne ko ci naka ah man yàlla laa ko xamee mu ne indil leen ma ñaari prisonnier ndeysaan ñu indi ñaari prisonnier mu taxawal mu ne garde yi rey leen kii damay joxeñ rek waaye waxuma kenn garde yi éliminer kenn ki mu ne waaw ah, du kii rey nañ ko mu ne waaw ah, maa santaane ñu rey ko mu ne waaw ah, mu ne dee na mu ne waaw mu ne kii maa wax ñu bàyyi ko fi su ma noon ñu rey ko léegi ñu rey ko mu dee <laughs> maam Ibrahima ne ko waxuma loolu de ki nga rey dekkal ko <laughs> loolu la yo mooy mooy dekkal kon nag yow rey nga ba noppi ki nga rey dekkal ko bon mu ne ko waxu gone ngay wax barki démb nga fi juddu waxaat ma beneen maam Ibrahima ne ko fa inna allaha yaati bi shamsi min al maghribi bi faati biha min al mash min al faati biha min al yàlla jëlee jant bi penk yóbbu ko sow ndëm yaay yàlla jële ko sow léegi indi ko penk fa buhita allazi kafar hmm. alquran lay wax de yàlla ne fa buhita wedam na wedam mooy ko amatut lay ko amatut lu mu wax ko amatut moobum génne alladi waaja nga xam ne kafara weddi na mooy Namruus ci jeexal ñetti weer fukki fan ñu taxan mu ne nañ taal taal bi ñu taal ko ba mu jàpp wax nañ ne diggante taal bi ak asamaan picc bu fi naaw sax wadd ci taal bi ndax tàngoor rab yépp xam ne maam Ibrahima lañ ciy sànni mu ne nañ ko tabaxal lu mel ni lii nekk sapeur pompier du gis ngeen ko escalier boobu ñuy defee seen entraînement yi pour bu lakk amee ah seetal lamp pap ah, bii la waaw kañ yàlla def maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam parce que mënuñ ko sànni ci taal bi ndax tàng na kenn mënu ko jege ba di ko sànni Iblis fekk ko ci réunion bi mu doon def ak état masoro moom Namrouz soppeeku mag mu am juróom-ñetti fukki at dugg si ñu ne ko yow foo jógee mu ne fii rek laa jógee soriwu ma foo dëkk mu ne maay diw ndekete day fen ñu ne ko ku la wax réunion bi mu ne dama koo yëg rek ne naa leen dimbale ndax seen pexe mi xam naa ne mënu leen ci dara ñu ne ko loo xam ne loolu la ñuy fexe mu ne nu ngeen sànnee maam Ibrahima ci taal bi Namrus ne ko loolu la ñuy waxtaanee mais xamuñu ko mu ne dangeen di tabax benn njéendi njéendi mooy lii lii sapeur pompier yi di def ci seen caserne yi pour entraîner am na fii am na ci caserne sapeur pompier yépp mooy seen escalier yu gudd yooyu mu ne dangeen koy tabax su ngeen ko tabaxee ngeen ut mbaq xam nga mbaq moom lañuy ñuy wattoo picc comme lance-pierre la mel bu ngeen utee mbaq boo ko xamul mooy piliyaan boo lu niroog piliyaan piliyaan yooyu mu ne bu ngeen ko defaree da ngeen di jël maam Ibrahima teg ko ci digg bi na ponkal ci cat bale ponkal téye ci cat bii ngeen windeel ko benn xiir rek na kenn bàyyi benn cat bi rek mu dem ci safara bi lay jubal namruus tàcc ko ne ko yow foo nekkoon mu ne man mag mu baax laa mu bari pexe ndekete iblis la namruus ne kon bi jeex na acca bismillah rek commencé ñu tabax ko ci saa si ca ëllëg sa mu wow gan ñetteeli fan bi mu wow namruus yéeg ca kaw moo yéeg ca kaw ponkal yi jàpp muy superviser est-ce que dana li Iblis wax dana am bi ñuy dugalee maam Ibrahima yeew ba mu dëgër yeew tànk ak loxo lañ boole kutum am ngeen kutum boole tànk ak loxo yeew teg ko ci digg bi windeel kenn ki bàyyi kenn ki lance-pierre bi eh, ki mbaq bi dem diggante foofu ak taal bi déglu leen intervention yi ma leen di wax mm-hmm. asamaan a njëkk a yuuxu ne ko maam Ibrahima waxal loo bëgg ma taw léegi safara si fay mu ne ko mënoo ndax yow dañ lay digal ki lay digale la gën a gaaw buñ la digalul nga taw doo taw te xam na ci xaal bi ma nekk ndax moo ma yónni suuf yuuxu ne ko waxal rekk ma ball ndox mi ma am yépp safara si ne mëlëb ci sama biir mu jeex nga yem fa mu yem fa mu ne ko jërëm gërëm naa la sant naa la waaye yow mënoo dara dañ lay digal ki lay digal moo la seef muy suñu borom te xam na ci xaal bi ma nekk jibril ne cëpp ci kanamam ne ko waxal rek mu upp taal bi ak sama benn laaf mu fay mu ne ko yow dañ lay digal di ki lay digal moo la ëpp doole moo la ëpp kàttan te xam na xaal bi ma nekk bàyyi rek kooku lu mu wax baax na xam na xaal bii ma tollu xam na ko ñetti intervention ñëwul asamaan suuf jibril te yépp am nañ kàttanal def ko waaye ki leen di digal moo leen di sant muy suñ borom subhanahu wa taala maam ibrahima ne leen xam na xaal bi ma nekk bàyyi leen mag moom rek gis nga ci diggante boobu yàllaa ngi calculer pen bi gaa yi def ba taxat matt mi ñetti weer yàlla ay ponkal yi jëmm màgget yi mënutoon a dem sax dañ fay ku leen taxanal yàlla ne duma leen rusloo nag seen doole jooju duma fay taal bi ñuy rus duma ko fay ñuy rus parce que gàcce la te du teg gàcce jaamam moom yàlla jaam mooy teg boppam gàcce waaye yàlla du teg jaamam gàcce de mukk ku am gàcce rek yàlla yaa ko teg sa bopp maa asaabakum min musibatin min sayiatin fa min nafsik wa ma asaabaka min xasanatin fa min allah wa ma min sayyi min sayya fa min nafsik kon yàlla ne pen biñ def ba taxan matt mii taal ko du ma du ma di ko fay ñu ne ko yàlla nooy def mu ne man maa moom lépp innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun yàlla ne maam ibrahima loo bëgg mu ne ko bëgguma dara loo bëgg rek yaa muy yónni mu ne ko bàyyil ma wax li gën a gaaw yaa naaru moo moom safara si safara si ne ko yaa rabbi saadeyta wuuyu naa te nangu naa ommatu naa loo wax mu ne ko kuuni nekkal noonu ngay tàkkee loolu lay firi noonu ngay tàkkee baax na neel jël jël jël jël jël ba kontaan waaye bardan na nga sedd guy nag tàkk-tàkk bi na na ñëpp gis ko waaye na na ci biir yàlla yàlla man affaire fa la jóge xam xamoo lii demal ci gannaaw kilim bi di tàkk demal ci ginnaaw doo ko ñaareel de frigidaire bi ci sa kër ngay ubbi di naan ndox mu sedd demal ca gannaaw frigo ba day sedd wala day tànk moo tax àjjana safaraa koy animé moo tax balaa ngaa dem àjjana jaar safara wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya waaye doo lakk ndax siraat mu ngi ci diggante àjjana ak safara fa la ñuy jaar pour dem àjjana yàlla stratégie la boo dëggaatee kilo yi la war a yóbbu bu matee rek daf lay fittax bu matul rekk nga baraste ko pom baskil la moom amul ñëpp fay jaar yàlla stratégie kenn mënu ko rëcc safara àjjana mu ci gannaaw safara safara moo koy anime wóorul <laughs> wóor wa in minkum la wax amul kenn ci yéen ludul illaa ludul waariduha dana ko jaar kaana nekk na ala rabbika fa sa borom xat man lu mu waat ba noppi maqdiyan dogu na ci xat man maqdiyan yàlla nee na dogu naa ci ñépp a fay jaar moo tax Cheikh Sidi Ahmad Tijaani alwali alkabir xutbul fardul jaami xutbil maktum barzaqil maktum taajil aarifin mumidil awliya waarisi sirri sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abil abbas Cheikh Sidi Ahmad Tijaani radiyallahu taala nee na samay taalibe moom duñ ko sax xam yal nañu yàlla def taalibe mu ne dañuy jéggi seraat ba noppi naan ana Seydina Cheikh ne leen yéen a dof ko ñu ne ko di fuñ jaar Seydina Cheikh nee na samay taalibe malaaka yi ñooy teg seen laaf ñu yéeg ci ñu jàll duñ ko gis duñ ko dégg laa yasmauna saxiixa saxiixa yal nañu yàlla def taalibe Cheikh duñ ko gis duñ ko dégg Ah, dañuy jékki rek naan waaw ñun siraat bi ñu doon dégg anamu sëy na jeex ne passé ngeen ko bu yàgg waaw ah, yal nañu ko yàlla defal du tarixa bi du caaxaan tarixa bi du caaxaan tarixa yépp baax nañ bu ci ne am na garantie waaye bii nag Seydina Cheikh moo wax lii Seydi El Hadji Malick bind na ko kon yal nañu ci yàlla tënk te rey ñu ci te dekkal ñu ci ñu ànd kook suñuy sëriñ yàlla def ci mbaaxam yàlla ne yaa naaroo eh yow safara si kuu ni ber nekkal noonu di tàkk baax na c'est bon pour Firawna pour Namruz na bég ak ñi ko doon dimbale nañ bég waaye bardan seddal guy neneñ bu fa yemoon rek seddaay bi rey maam Ibrahima mu ne ko waaye wasalaaman na nga ko temporiser bu seddee bay waaj a guyi nga nuggal ko bu demee bay waaj tàng nga seddalaat ko na nekk automatique bu mu ko yëg mukk bu mu yëg ne mu ci biir safara bi xam nga lu tax mu ne bar dan mënoon na ne yaa yem fa lu tax mu ne bar dan li muhammadan ndax boobu yonentu baa ngi ci ndiggal maam Ibrahima du maam Ibrahima de moo tax mu ne ko kuunu kuuni bardan yaa naaru kuuni bardan li muhammadan wa salaaman li muhammadan ala ibrahim bu leen woy moo tax nga dem ca nuuni ya Seydi Hadji Malick indi ko waaw ah, bu leen woy yéen cheikhu bu leen woy attends lee tax ah wa bihi yëkkati ci benn rek bu dee mën nga ko waaw kañ kañ boobu baax na de ana micro ba waaw baax na riime leen ko noonu acca acca waaw kañ Abdo mii nañ muñ ba ëllëg ku bëggoon a xam Maodo dina xam Maodo ku xamoon Maodo dina xam Maodo gis nga ni ko riimee ñi mucc ñépp ci anbiya yi ci barke yonent bi lañ mucc unanimité ñoom ñépp anbiya yépp ku ci nekk jaar-jaar bi nga am ba ngay rëcc yonent bee tax nga rëcc ba ci maam Aadama waaw yonent bee tax yàlla jéggal ko ba mu demee ba tiit yaa lu mu wax yàlla baal ma yàlla ne ko duma la baal te julliwoo ci kii ñëw ca la ko yàlla door a baal mhm. moom la Seydi Aj Malik indi noonu waaw mhm. di wàcc di wàcc ba ci yonent yàlla Ibrahim mhm. ba ci yonent yàlla Isa bi mujj ci anbiya yi ba ci ñun ñun Maodo daf ko ca dëxëñaale ca ba muy salaatu ba te xam nga fu mu ko jëlee walaw annahum id dalamu anfusahum jaauka fastaxfaru llaha wastaxfara lahum rasul la wajadu llaha tawaaban rahiman yàlla na yonent bi gaa ñi seen bàkkaar yu bari yi yëgoo ne bu ñëwoon jonkoon ci sa kanam ma baal leen <laughs> walaw annahum doonte ñoom is jamono ba nga xamee ne dalamu tooñ nañ seen bopp ci defi bàkkaar ba xamatuñ fuñ jëm jaauka ñu kondam kondam sukk ci sa kanam fastaghfarullaha jublu ci jaamu baalu yàlla wastaghfara lahum rasul yonent bi ne yàlla baal leen bo buy ŋaaŋ rek la wajadu ca saasa immédiatement danañ dana fekk man yàlla tawaaban ma baal leen bu yàgg duma ci yem rahiman yërëm leen ñu ne yonent bi dem na fu ñu koy jëleeti bay kondom kondom mi toog ci yonent bi ci kanamam ñu ne ñu ko fi wuutu moo tax ngay dem ziyaare Tiwaawan kii jëm Touba kii jëm Ñaseen kii jëm Laayeen kii jëm Ceneba kii jëm Njaasaan kii jëm Medina Gunaas ñoo ñoo fi wutu yonent bi jëmoo fen waaye jullil ci yonent bi jëmoo fen gëmoo yonent bi gëmoo benn sëriñ taayal ñépp ci bokk yem moom taaye moom màkka ba fii benn bi la ataxiyaatu lillaahi azaakiyaatu lillaahi atayibaatu salawaatu lillaahi assalaamu aleyka mu ngi fi walla newu fi na ko waxee sax moo lay won mu ngi fi moo tax kayeen yi am nañ fa am nañ cër de hmm? assalaamu aleyka ayyuhan nabiyu assalaamu alayka yonent yëpp ne labbayk ñu kenn rek ayyuhan nabiyyu te soo ko ko waxee mu delloo la ko wa rahmatullahi wa barakaatuh dara wax assalaamu alayna wa ala ibadillahi lu tax yonent bi di la ko delloo pour nga mucc ku jéggalut doo mucc jeex na te yonent bi ne ku ma fay ma ku ma nuyu ma fay la delloo la nuyu kon boo jullee moo tax julli di garanti sayit bul ñibbi de julli di garanti ci sippi bàkkaar ku gëmul benn tarixa it xanaa dinga julli boo jullee dugg nga ci biir ah laa yuadibuhum allahu wa anta fihim wala yuadibuhum allahu wa hum yastaxfiruuna ah na moo tax maam Ibrahima biñ koy sànni yàlla na taal bi bar dang seddal guy waaye bu lor nag wasalaaman na ànd ak mucc lu tax ala Ibrahima li muhammadan diggante boobu njanaaw yépp li yàlla bind yépp yuuxu ba mu des bennum unku li yàlla bind yépp unku rekk a ci yuuxu wut moo yéene woon maam Ibrahima mu lakk unk mboolem li yàlla bind mennum unk rek moo noon yàlla na lakk yemu ca mu jonkon ca buntu taal ba di ëf ndax unk ni ko yàlla bindee moom tàngaay mu du ko rey waaye keroog la ko tàngaay commencé di sonal moo jonkon ca buntu taal ba di ëf ne mënuma dara waaye sama participation mooy ëf ëf ëf yal na tàkk te bu mu fay fa la toog di ëf ba bët ya buqeeku moo tax bëti uñ ku mel noonu xool xoolal bët uñ bët yi dafa buqi ko loolu buqi bët yi moo tax yonent bi ne foo ko gis dóor ko benn yoon mu dee am nga téeméeri yiw xadiis yoon xadiisun saxiix muttafaqun alayhi ba benn yoon nee na soo dóoraatee ñaari yoon juróom fukk ngay am cinquante waaw benn yoon mu dee rek am nga téeméeri yiw waaw maam Ibrahima nekk fa weer ak fukki fan la taal ba takk un mois dix jours quarante jours la taal bi takk ñu door koo ñemee tiim nii di xool te ñam ruuse njëkk a toog ca kaw étage am ba moom di xool bi mu amee quarante jours quarantième jour bi mu toog ca kaw njëndem ja di xool gis maam Ibrahima am ko muy waxtaanal ba di ko tàpp ñoom ñaar ñuy xaqataay mu ne kii bi ñu ko fii sànni di kenn la woon kan la toogal fii di waxtaan ak moom bay waxuma ñàkk lakk gi waaye eh, waxtaan gi bay ree man la ñuy kokkali mais kii lan la waaye ñu taxul ñu ñemee songu taal bi bi mu amaatee fukki fan muy juróom fukki fan la taal bi sedd guy maam Ibrahima jóg rek. yëlbu poussière sax topp ko mu daagu utal ci namruus namruus jóg nag ñépp tiit foog ne day tuub mu jóg taxaw akolaat maam Ibrahima ne ko sa yàlla ji bég naa ci moom waaye gëmuma ko nag bég naa ci sa yàlla ji lool gëmuma ko ndax suturaal na ma ba sama taal bit feyut waaye suturaal na la ba lakk ko mu ne ko doom kaay ñu waxtaan nag man ñàkk gee lakk sax méttiwu ma ndax dama bëggoon nga lakk waaye kokkali bi mënoon kokkali di waxtaan bay ree di tàppanteeg sa morom moomu kan la te yow kenn ne woon ci taal bi mu ne ko ah kooku jibrilu la moo fa nekkoon nag man di ma wéttali rek mu ne ko kuy jibrilu mu ne ko li ngay bañ a dégg moo koy def ci man bi mu ne ko lu may bañ a dégg mu ne ko yàlla mooy yónni te mooy indi wax yu gi mu ne ko sa borom boobu daal bég naa ba dinaa ko reyal junniy gëlëm junniy xar junniy béy junniy nag junniy ginaar junni bër xeetu bër boo xalaat dinaa ko def junni xeetu naan yépp dinaa ko def junni ndax dama kontaan ci sa yàlla ji terale ko ko waaye ne ko gëmuma ko nag maam Ibrahima ne ko bismillah loolu yépp def na ko terale ko maam Ibrahima terale ko yàllam ji waaye taxul mu tuub waaye gis nga yàlla kuy cippi cippi cippi cippi dalay booleeg lu tuuti moo tax mu dem ci suratul baqara tudd fa lu tuuti ne maa baudatan jëlal baqara maa baudatan mooy yoo yoo la booleel namruus yoo li gën a tuuti ci li yàlla bind ci liy naaw ndax sànq lañ moo ëpp yoo ko ëpp mais luy naaw yoo ci gën a tuuti néeg néegam mosul am yoo mu xëy rek néeg bi benn yoon ne ci néeg bi buñ pompee dara buñ xoolee duñ gis dara ndekete Mikaayil la yow bi Mikaayil la woon ne mu soppeeku yow bu tuuti rek ne carax ci nopp bi xam nga yow bu duggee ci nopp normalement bu fa amee ñetti fan ñetti waxtu rek war na dee yow bi di gën di yuuxu ci biir nopp bi wu xam nga yow bu lay romb nii di yuuxu rek da ngay énervé waxuma na mu dugg ci sa biir nopp namruus woo ñépp ñi mën a ñebe rek ñi mën a médecin yeeg luñ def ci nopp bi rek yoo bi di gën di yuuxu benn njeberkat ñëw ni ko gëntoon naa ko mu ne ko loo gëntoon mun ne ko dama gëntoon ñu dog sa bopp bi def ci bopp wurus nga continuer du dund te loolu yow dong la ko yàlla defal ci àddina maa ko gën Namruus ne ko may biig loolu laa gënt kon yow sama gënt gi nga gis gis nga yàlla lum nar mu ne ko kon yow sama gënt gi nga gis moo tax ma ne la loo gënt li nga gënt laa gënt ndekete seytaane soppeeku encore pour wan ko ne ko doo yàlla ndax seytaane waxoon yàlla ne ko ñi naan yàlla lañ di dinaa leen fenloo ba ñu xam ne duñ yàlla yow yàlla wa fa bi izzatika ba mu ko waxee yàlla ndax moom xam na ne yàlla am na waaye dafay dafay naage gars yi ci erreur pour am ku mu àndal dem safara loolu la waxoon yàlla ne ko duma fa wéet de yaa ma dàq waaye duma wéet sa gaañi dinaa ci bab bi lu ma mën yàlla ne ko illa ibaad inna ibaadi yàlla nañ ca bokk laysa laka alayhim sultaan yàlla nañ bokk ca diggante ni ko sëñ Babacar si daan waxee diggante daal ji ak yee yaa ji diggante daal ji ak yaa ji yàlla nañu yàlla dugal ci diggante suñ fa duggee rek mucc yal nañu fa yàlla dugal ci barke sëriñ Babacar mi ko waxoon mu joxe rendez-vous bésu samedi moom Firawna wóot ki gën dàqoon na. moom Namruus. moom ki dàqoon na dagg bopp ci kaw ci ci gaayam yi mu woo ko ne ko yow yaa doon professionnel bu mag bi nga xam ne ku mu ma sa wax rey ko rek booy ne nii rek bopp bi dagg mu ne ko jaasi bi nga daan reyee nag nàmm ko lu mat ñetti yoon ndax mu gaaw ndax bi may gënt dañ ma ne na gaaw <laughs> yàlla man wurus wam amoon yépp mu tëggulu ko bopp bu niroog boppam bi kon yàlla jël na alalam yépp mm-hmm. seetal stratégie bi yàlla def lam amoon ci alal yépp wurus mu dajale ko jox ko tëgg bi dàq tëgg ci jamonoom mu mu ne ko na niroog man na mu tëggal ko bopp bi ba mu niroog euh, namruus boo ko xoolee ne namruus la xam nga gars yi fii rek am na ñu mën a dessiner bu ñu dessiner léegi ma ci am mi mën nañ ko dessiner léegi nga ne Mansour Thiam la waa ji tëggal ko bopp bi ñu teg ko expert yëpp xool ko ne ho huwa namruus kii kañ namruus pire la mu ne waa kon bii laa bëggoon lal ni ne waa ji samedi na nga ñëw yéen ñëpp na ngeen ñëw feet la ndax man doo nga fi am bopp wurus ci li yàlla bind daldi di ne ko nag ma xool ñaw ko ki <laughs> yàlla mën moo rey boppam mu xool mu ne ko booy kutt rek teg ci def ko feet ñépp toog ci pénc mi mu ñëw toogal boppam ci chaise bi daal di ne waa ji su ma nee nii rek ñëwal kutt yow su ma nee nii rek indil bopp bi sàmm ma ne ko doo jote def nii de ba mu ne nii rek waa ji naaw ni cas bopp bi mu dali fële mu fi tax rek jël mbooloo mi rek deret ji sànni jotu la def nii ndax dafa ne nii waaja daw ak bopp bi ñëw samp bopp bi dali fële mu sampaat mu dali fële Haamaan a ni nguur ga jeex na lii la ci yàlla lii la ci yàlla namoon ah, dama juum eh, ah eh, déedéet kenn ci dagam yi moom balaa Ibrahima di wax Ibrahima kañ fekkewu ko sax moom Ibrahima boobu mu ngi ci Kaaba ga di xaar ñu tàgge ko namruuz te xoolal diggante bi moo tax ñuy wax ne maam Ibrahima huwa huwa abul anbiyaa yi xanaa xamoo maqam bu ñu lay jox ci àddina ci kaaba gi nga koy jële <laughs> yooyu duma ci dugg sax muy indi beneen beneen beneen wax yooyu eh, beneen wax lay indi tarixa bi maqam bu ñu la ciy jox ca kaaba ga nga koy jële baytilaayil xaram yàlla ko maqaama yi ñu joxe ci tarixa bi buñ la ciy jox ca baytilaayil xaram nga koy jële wa laa doo ko ràngoo faw nga dem te booy dem bil jismi war roox ngay demee du roox bi rek kay dem de roox beeg yaram bi yépp ay dem loolu ci ci mayu tarixa bi la bokk xutbul fardul jaame bi nag moom rek moo ci am jëmmam benn ci jëmmam yi foofa lay sax dàkk du fa jóg lu imam ba di def moo koy def imam bi jiite sa jiite wut de xut bi bu mooy jiite ci biiram moo tax imam bu fa mën a nekk ku mën a doon ci taalibe tijaan mën nga roy ci ginnaawam ndax jiite wut kooku sew sew la ndax Seexuna Tijaan yi moo wax ne ku ma weddi bul roy bu ko roy ku may diingat man cheikh mu ne man na cheikh ku may diingat bul roy ci moom julli ku may diingat nag la wax ku ko diingatul nag man nga roy ci moom julli mu ne waaye ku may diingat bul roy ci moom julli ñu ne ko nu ñuy def mu ne da ngay def salaatu muhazaat bu mu la tey dem jàkka de demal jàkka ja salaatu muhazaat mooy buñ bu ne allahu akbar ilamaam ji nga ne allahu akbar waaye da ngay yéene jullil sa bopp du tee nga am julli mbooloo mi déedéet doo ko jiitu da ngay bàyyi bem na allahu akbar nga ne allahu akbar waaye sa bopp ngi dangay ngay yéene jullil sa bopp loolu même balaa ko dina Cheikh di wax ci sharia dafa dagan imaamu kàccoor bu lay jiite te mënoo ci dara xam nga am na imaam buy njaaloo nga xam ko imaam buy naan sàngara nga xam ko Europe de suñu jàkkee xam ne salafis waaw waaw mooy salaatu mu hada Seydina Cheikh moo ne ku may diingat ah, li may wax nañ ko dégg de ku diingatut bokk ci. ndax Seydina Cheikh dafa ne ku ma sopp balaa dee dina nekk waliyu ba xam ne waliyu la. doonte bokkul ci sama tarixa noonu mu garanti ki ko sopp te bokkul ci tarixam noonu la waxante ki ko weddi te pourtant rëbbu ko Seydina Cheikh rëbbul ku ko weddi de xam nga kan la dina Cheikh rëbb ki jàpp tarixam bàyyi ko te rëbb bi sax daf ko daf ko yemale dafa ne bu ci del siwaatut kon may na ko bunt bu mu del dafa ne bu ci del siwaatut kon may na ko porte de porte de sortie waaye dafa ne ki may diingat nga xam ko yow sama taalibe bul julli ci ginnaaw mu ngi mel ni yow ngay jullit di dem ci jàkk ja nga xam ne ilimaan yi day njaaloo am na gel fii <laughs> ah? waaw ñu ne kan moo dënk waaw kañ demal jël ko ti ñëw dégg nga nga xam ne imam bi am na gel gelam baa ngi faasiq la te mënoo ci dara mooy imaamu koñ bi wala nga xam ne imaam bii doxankat la ñu baal ma ci wax bi mais dafay am wala nga xam ne imaam bi toxkatub cigarette la ah tox cigarette ci la bokk Seydina Cheikh nee ne sama tarixa ku ci bokk doo tux cigarette booy tux dog nga ci tarixa bi wala imaam buy naan sàngara nga xam ko nooy def te ñeneen ñi xamuñ ko te yow xam nga ko charia mayatul la nga julli ci ginnaaw te charia mayu la nga dénoncé ko mm-hmm, mm-hmm. ah mukk boo ko dénoncé ñu caw la ndax dañ lay jàppee fenkat ndax amoo seede yi amoo seede yi dañ lay jàppee ku yàq der ak ku ŋàññi gor ku xas gor juróom-ñetti fukki yar lañ lay caw yow mi ko dénoncé moo tax Sénégal buñ doon caw ñi ñuy caw dana bari de ah, yàlla dafa màndu yow yaa ko gis waaye ñeneen ñi gisuñ ko sutural ko